ramadaanangi weru uh-huh. yërmande uh-huh. ramadaanangi weru njëggale ramadaanangi weru weru njëggale

Bamba kii nga moom kii rek. waaw ndeysaan eh Baba Omar waay ah gëj naa ko gis de. gëj naa ko gis trop trop trop. mën naa leen sëñ bi ñaar mooy ñaar waaye ñu si jàmm ñoom moo ma sonn ñu naa fi léegi bisimilah bisimilah kii tey alaa def ñaa fa ma def dara waaye si jàmm alhamdulilah ah di baax di baax na si de ah. di baax na si jëndee sax sax waaye daal kenn ni ñoom man da ngay ñëw ah xam nga ñu nekk si tool yi ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw xam nga tool yi moom xam naa xale yi dina xam doxal na doxal xale yi sax xale yi si daan xam na xale yi sax ba mu fekkee xanaa moom xale yi lu ndaw la waaw xale yi def ñëw na xale yi xam na xam bu rek si ñu sax bu ne xam na xam nga adduna daa tëri xam nga ndax seen suñu sama doom ak sa doom dañoo war a xamante dëgg la ma la xam nga ko kon léegi na bu baax sax fas yéene fee woore ndeysaan dafa mbokk fas yéene fi defaale nag jàng xam-xam moom fii nga ma jàngale sama jur lu mu bëri su may ñibbi yóbbaale dara ndeysaan ko defee mën cee gëstu bu baax a baax yow nag xam nga nag danga may comprendre ndax toolee fee géeme <laughs> na nekkee ak gone yi xale yi moom faw nga leen a jubal. Ah, waaw wala moom tool yi tool yi di la mën a ji daanaka mooy loolu. waaw eh, mais léegi soxna daanaka yenn saa yi baax na fay baax. jéem laay noonu la demee. kontaan nañu bu baax kay. laay noonu la demee ñoom baax na kontaan nañu bu baax mu a baax. non non son soxna Dior lii dama ma dal mu ah, baax. ah parce que soxna rek kon nit nag ak tàngaay bi dox ba ngeen doon. soxna moom ak ah, yow da nga war a dox. boo tukki ba sonné mën nga dox wala yow ah. am kon nag. waaye mu fàttali rek. kon incha allah xam nga góor yàlla jom rek la. waaye yëngu na la. kon baax na kon incha allah kon incha allah. daal la jàmm te daal a ngi. weeru ah, na nga seen leçon na leen góorgóorlu ah non non non toogo toogo toogo toogo toogo toogo jàngal ku jàng moo gën a for ki taxawal jàngal jàngal ah maa ngi góorgóorlu baax rek waaye ana ci moom ana xadisa moom kon moom day jàng moom wàccagul wala ah, waxtaan bi da am gan bu am solo seen moo fi ñëw papa moom fi gëj waaye teel la gan dañ koy ganali ci yaatal sa bopp yaatal sa kanam ah wan ko teg te ku ne xam na li yéen di wax si gan gi nag ci bépp côté la maanaam ci li moom ci li nga yëpp nga ganale ko si yaatal moo tax bu demee mën a ñëwaat te wax nañ wax nañ ne gan saa bu ñëwee bu ñibbee fa mu bàyyee ko woon donte sax kenn la laaju ko bu demee day day nekk dem gisee kon nag bu baax seen papa sama rakk la kon def na ko comme man jàpp comme man te nit amul lu dul mbokkam kon bu jógee dëkk ñëw seet sama tey ngir noonu mbokkam la ak yéen ay kon ko comme man ndax euh, wax na benn bu mu dem euh, ci xare ñu ko waxee dana dégg benn mbokk na ko waaye dégg sa mbokk dana ko akaak akaak banam jeex mu ne ko kuy dem si xare kat euh, ku am mbokk te doo te doo koy jokk dangay mel ni kuy dem si xare te amoo nga ne kuy dem si xare amoo nga ne boo demee day am na Paa Omar seen bàyyi la man man magam la seen seen papa la ay doom lañ comme na nga yaatal ko bu baax a baax nga xam ne nag ëllëg mooy doxee noonu yéen tamit yenn saa yi ngeen bàyyi ko fi dem def seen ay doom ngeen xamante ndax ëllëg daal tëdd moo tax su mag nga xamante ay gone nga xamante lu moo tax euh, réew la am ñu ngeen gën góorgóorlu bu baax dégg nga yow ba nga am jàngat yow sax suuf rek bu nit ñi duggee rek ngeen si école ba rek waaye noonu la góorgóorlu leen baax ngeen xoolal seen leçon yi incha allah kaara maa ngi jaay jaar si biir Ramadan a ngi yërmande Ramadan Ramadan angi weeru yërmande Ramadan angi weeru njëggale